ilaha kon ñu ngi nuyuwaat baax tey siyaar mboolem rek ñuy topp ci réew mi ak ci bitim réew ci émission bii nga xamante moom ngeen baaxoo topp saa yu waxtu yu jotee tey nag ma dalal mbokkum taalibe moo xam ne xam naa dañ koy bàyyi mu daal di ubbi nuyoo nuyoo boo xam ne dafay nekkaale nuyoo boo xam ne nit ñi danañ ko miinaale bu baax a baax a baax ndax sëñ bas Niass ku ko dégg xam ko ci tuuru yàlla wi yaakaar naa ne bokk na ci ñi ko njëkk a def bokk na ci ñi ko njëkk def te ñu ci bëree bëree tamit ay ay daajam ay eram la ñuy roy ba léegi nii kon sëñ Bass lañ dalal tey jii xam naa dañ koy wax naan ko saxaar bu jubee euh, gaar day korne mm-hmm. sëñ Bass ginnaaw boo nuyoog mbokk yi ñuy seetaan ak ñi lay safoo ci réew mi ak ci bitim réew euh, ñu jox la kàddu gi rek nga nuyoog ñoom incha allah rabbi mm-hmm. لا إله إلا الله فعل لا إله إلا الله لا إله إلا الله فعل مصطفى لا إله إلا الله لا إله إلا الله فعل فلا إله إلا الله لا إله إلا الله مصطفى لا إله إلا الله لا إله إلا الله فال فلا إله إلا الله لا إله إلا الله fa la ilaha illallah la ilaha illallah faal Mustafa la ilaha illallah la ilaha illallah fa la ilaha illallah la ilaha illallah Mustafa la ilaha illallah dégg naa ci nettali ñu ne maam Cheikh Ibrahima mas nañ koo laaj xiin yi la ko waral waaw mu ne dama des na tuuti ci kanam ndaw ñi kenn mënatu leen a waar waaye da ngay tëgg ba ñëw nga wax leen li nga leen bëgg a wax mooy léegi nit ñi. Mm-hmm. la ngay dégg yow la ngay dégg ak ñoom la ñuy wax boo ñëwee lan nga fay dégg ak lan nga fay jëriñoo. xam nga Cheikh Ibra ci jamonoom. Mm-hmm. ñu bëri danaan la tëgg xiin di sikkar. Mm-hmm. bëri na histoire. soo gisee koo laaj mën na ma ko laaj dama ci xam lu bëri. ci jamonoom. tabala moo amoon. tabala. loolu nag. Mang mo fekke jotaay ba yalla dimbal na ma ñamanante ak mom bam mu koy nettalaat dama ba ko ne ci mom la ko jëlé ba ko netlat bo mag maag bay seen ñaan mu diko wax tabal ak maam Serigne Fall go nga dañ te tëgg jëf jël ne daam bis ñu gam kess ba nopi mhm. ñu sàjj tabala gi mhm. di di yëngu ñum seen biir mhm. maam serigne ñëw ba tolloog tolloog buntu bi ku ñaa maam yank ci la dal bu ñu teel ko mu ne ko fall mu ne ko ana ngeen def non mu dañ lay sant rek fall mu na jarna ko de di dem bi mu dikkee carrière ci lañ ko dolli suñu saafal dolli ko ba muy ñett ñu di ko soññee gone yu jigéen ñi ñuy dem carrière bu nappi wéerat ko sëñ saafal nekk na fi ba jóge fi dajlewut jigéen ñi góor ñi ñuy sikkat di yëkkati loolu déedéet bi sëñ seen diil muy dikkee ci la ko sant boom dogoon nag mu samp ko daati wax ne lépp looy wuti soo ko soo ko ñemee ci tur yàlla xam ne moo gën a neex lépp looy wuti rek ci lu baax ne boo ko ñemee ci tur yàlla xam ne moo gën a neex mhm. ndegam day woote mhm. te boko dalé ci lañu xum bu xumboon na nga tuddu leen yalla bu yàlla màngee seeni xol rek bu yàgg duñu bëgg ku yalla loolu la seen jublu da defar na ci bo gisé ndaw ñu fi mu toll nii mhm. li ñuy moy fi mu toll nii mooy doonub sérékat doonub sérékat rek dara indi ko amna ci nak ay sew-sew yu bari mhm. yo xamna ne jamono ji ne maa ngi koy mhm. ngi lér na dafa am ki roy lamuy roy ak lam ci dolli bokku te ki nga xam mom lañu roy lako ci engagé mom da ci am part bu ndax da wara wax li liñ ko ree lan la lan la leen ko tuddu yalla hmm. amuti caaxaan tuddu yalla hmm. desu ko foyé tudd yalla kenn du ko fecc itam desu koy dukkat te fecc dukkat li ñu bokku ñu suñ ko dé fecc rek xamal ne buñ ko dé fecc rek rax na leen tuddu yalla la ilaha illallah hmm. muhammadur rasulullah jant bo ci tuddé Cheikh Rafal ko ca tek da nga bëgg ñok ak ñambar ci mam Cheikh waaye agul Cheikh Rafal fi ni dina dina tudd yalla ba ba kagn serignam mhm. tudd ko mhm. fekk na koy fatali ngir maam Serigne Fall rek tur yalla ma ngi dañ ci da waxante am ar bi ñu wax réglé mhm. bàyyi sëñ nee ma mbokkum tal bi mu ñax maam Ada Kase mo daan de bo ma majjaal majali majal mi day neex lol ñu daan ko ñu daan ko yakamti du gis dañ ci da toñante sun ko bu bu bu majal nag bañ bañ bëgg xam fu mu toll la jëg jékki-jékki tok fi mu toog daal jëg jëg jékki bu ñu jékki rek kenn daal di maam Ada kase maabo ada koore mu teexe laa laa yàgga baax laa laa ah, loolu mooy air bi. mooy loolu indi air bi ñoom dañ daan wax ci biir. dañ daan waxtaan seen biir. Modou Yadie mi bi mu dee ba sëñ Moussa di ko wàcce lu bëri Modou Yadie di toog bu ñu ko daal di tin daal di ni da naa ne Modou Yadie Modou Yadie ñibbil sa kër baay ngërëm nga doon wóor am nga ko eh. ñëwati aw loolu nda dañ lu ñu bëgg a wax dañ ko daa waxante ci biir si kar bàyyi lolo mooma net loolu loolu jotut jotut jotut ndaw ñi xam ko dañ ko wara xam xam li bi daaj bi daaj bi ñu ci bëré bëré xamuñu déedéet liñ ci liñ ci njàmba liñ ci wax ni mm-hmm yu ci bëri kon jambas ci si kan la jambas ci si kan la bokk mag ñi. Mhm. daan nattali. Mhm. parce que ne bi mam Serigne Fall demee. Mhm. dañu dajé suñu moussa Fall neem bu dongee dañ daa si kat ñuy bërxal. nan express ba dem na. ben bi serigne Moustapha Fall dégg leen ci bërxal bi bërxalu si kar de. leen bañ delloo mal leen. express de dem na way saaru kër ngey fi dess ag fo tëy nak mo gën tardé. ñu dem ba min ko ndax ku ku ku Cheikh Rafal tarbiya bala ngaa gëm kenn jafe nde miin Cheikh Moussa mu mat li mu doon ci lañ lijjantee nag nga dégg leen am na air bu ñu daa yëkkati naan kon kanaa yaa koy mujjee laa laa la ilaha illallah la ilaha faal illallah loolu daa mel Baye Serigne Fallou Baye Serigne moom laay wax ni moom wax li bi ñu ñëwee sëñ Moussa nag mhm. ñuy yëkkati air boobu mhm. di ko yëkkatilee sëñ bi air bi nee na ma yëkkati nañ ko fii ci lu toog nawet mu taw fii ci këru Mbàkke gi Baye Serigne ñaam ñu yëkkati ko mhm. am di Cheikh Moustapha ji ñu di ko ci dugal na ko fi jaay ak baax mbaa nga jaay ab taar am di Cheikh Moustapha di ko ci dugal di ci dugal air bii bi Cheikh Moussa demee lo dalat na seigne Cheikh Baab hmm dana mag ni di ci kër di lebran ko fi jaag bax ba nga jaag tar am di sa waja sori hmm. seigne Cheikh nak nag ci sikkar si rek ne hmm. nak ci sikkar si rek ñoom rek hmm. te loolu ñom dañ ko daan dégg ci sikkar lañ ko duggal sax buñ ko bëgg wax seigne bi amul lenn ñoo xam ne du jàkkaarloo mom te du génn air bi du génn air bi manam lima yëm moy ñom li ñuy wax du génn air bi dédét té ba paré buñ paré mëna ñoo tiyat seen air dañuy té air ba ba ci bi air bi ci yenn wax liñ bëgg wax lepp ci lañ waxtaan buñ dé dee ci lañ wootante loolu mo do bërxër yi heure bii kii di fa ma sëñ Sall na ba taay yónnee na ba na donge nañ génn sama tur yi ñu na bis kilifa gu baax. Mhm. wax na ko li nga ci daj faal ko ku ko ca law bëgg bu maalaw yettee may la njur mm. fokk tudd la ci. néeg la waaw ndax ni mu daan def. waaw nee na ma. Mhm. sëñ Cheikh bis am na ngan gun dem. Mhm. di si kër. nee na man maa ko laaj na ko baa ji bi kañ ngeen yëg ne. sëñ Cheikh reef na ci moom tur yàlla. mu ne ma sëñ Cheikh Fall de kenn xamul lu mu doon. Mhm. te naa la xamal yaar ku mënta delloo si sëñ Cheikh Fall mënoo indiwaat si ko si jibi kaw suuf ndax jibi sikkaru sikkaru ma sëñ Cheikh doon sikkar. moom sax dégg naa boo ko naan sikkar si daan du man kee la. sëñ Cheikh doon sikkar na ma ne bis day. Mhm. bi nee belal. Mhm. annoncé na blaat bi. ne sikkar naan sikkar soo xam ne gis naa sëñ bi. am lu mu def jox ko mu naan. bu doon na rajo yi léegi dama naan la keroog daa soppi baat bi def ko mu baat éku. nee na am na fu mu doon sikkar moom dañoo sikkar sëñ bi yónnee mat ñaari mbuur daaru faal sax ñaari yoon daal ne nee leen nañ sikar ñe mhm. bu sëggee wax ko jibi jibi ne waaw bu yëkkataatee ñu yónnaat ndaw li ñaar na ko sëñ bi ne ngeen sikar bàyyi sëñ ne ko jibi nee boo dee nee ko moom mooy sikar na ko teg fu ko neex <laughs> mais bi ndikki muur leen ngaram-ngaram daa dem toog sikar si mel ni dañ leen a banseet mu jóg mu ne ah yaakaar naa foofu la de xam nga kon kooka am loo xam mi ngi ci poosam moo ko téye waaye sëñ Bass yow da mas nga fekkee ñenn ci ci ci ñooñu waaw fekk naa itam kuréelu Baye ba ba Baye Serigne ba tey moom. Baye Serigne. fekk naa Baye Maxat Baye Maxat Badiane dañ koy dañ koy taxawlu ci Baye Serigne bu baax a baax a baax. fekk naa Baye Maxat Badiane. Mhm. Baye Dieng. Mhm. ñii moom ku ci nekk. Mhm. fekk naa sa sa tur yàlla ba tàyyi waaye Baye Serigne. daa doon koo xam ne moom laa marqué. to defoon ko nii moom. donte xam naa ñii ñu xam ma lool. ñoom la lay yëm ci mag ñooñu bu ma daje ba waxtaan nii. yow doo ci jariñu yow. Hmm. waaw la ñu waxtaanee doo ko bëgg a dégg. dañ mel dañ lay dàq dañu waxtaan loo xam ne naan ñokke ne lii gone du ko dégg daw dem ñu ne seet leneen bu maa nekk xel ko ba mu wutal ndox lépp ba toog seen wet damay gaaw dem mbaa mel ni ko nelaw sax ndax bàyyi seen waxtaan waaye ku ci ñoom bàyyi suñu dem na ba nga xam ne am na bis bi muy si jógee këram ñëw saam fall péñi saam bi sikkar si ajuma ji rek képp saret ko teg ndax tëli der da nga yaakaar ne moom moo am na bis ñu màggal soxna Jeefaal fii mu ñëw laajte ma ñu ne ko bas dafa si buru yow la xam ne. ñi am na leen lu yàlla def ci ñoom lu lu lu wuuteeg ñun la ñuy gis wuuteeg ñun la ñuy gis hôpital laa jógee ñu pikir ma ba mu ñëw tëdd. mu yónnee daal ne nañ ko woo mu ñëw. Mhm. te yàlla ko fer mo koy faj. ñu may ma loxo ma sol mbubu ñëw ma ñëw mu jox ma micro bi ma jël micro bi di benn benn. sama mhm. ñàkk yu muy génnee. Mhm. dafa mel ne dañ ma jamono ak dara nga di ko sekk di teg nee ma di ko ma man damay séen li ñuy sekk di ko teg nee. ba ma wér pelek ci biir sikkar si. keroog am na ko ñoo fa bàyyi nduur taalibi sëñ Fallu Fall Fatikan la. yàlla na ko sama borom dolli dolli yërmande yuuxu na ba tax ma ak jaaji ci tur yalla wo kërëm ma tàggoog ma ma tàggoog si buru si bàyyi ne ma eh ma ko li mo mo la tawat ta mo lay ta mo lay fajj hmm. bu ma faatoo nag na ngeen ko nak nga ma ko defal. li yema mooy ba mi gëna dina fekkon na ma am fu ma demoon damaa ñëw yem ca moo tax ma ceemee mu def ma al mitu ñu bari dapp na ne li ma tax a sama sogo bëgguma ko bëggon waaye wax ju ma la wax ju ma waxon la te loolu war ma ko na fekk te da ngeen waxtaan ci sikar lu bari lu bari amna lu bari nu moy dundé sikar mom ko digal sama magati duggate yàlla yii koo ci gisee laaj ko mhm. bu buñ ma bettut du ma leen nuyoo loxo kese mhm. du ma bokk ñoom benn programme benn ba jim caa doon dara mhm. loolu ñoom ñoo cay doon dara lalukaay bu ma fekkee ñoo cay toog bu dee benn ñoom laa ko jox man pare naa ci ca toog bàyyi sëñ moo ma ne woon noo bëgg ku la ko def ci tur yi na nga ko def ñu la mag ci tur yi ko def ñu la mag moo taxit de fi mu toll la ma waxoon loolu la ma digaloon ne day jiital nit ñi. wallaahi naa bul doon daanaan mukk de. Mhm. tur yi bu doon daanaan. Mhm. ma ne ko bàyyi lu daanaan ma man daanaan mooy koy xew di xew yi da nga doon tudd ko rek yàlla rek fekk yàlla lay xew ngay xew. ak gars yow la ñuy déglu. waaw loolu rek la ma xew ngay ma ne ko loolu luy différence bi mu ne ma. Mhm. soo doon tudd ko rek yàlla. def ko ngir yàlla. fan jàpp na fa nga ko tëlee fan lay commencé lay teral moom di jëm yow kaw ah. waaye boo dee daan nag fa sa daanaan yem fa la teraanga jëm sa waajur nga njëkk ci sikar kon yow sikar da nga ko da nga ko da nga ah, dama kaa mel dama kaa juddoo. judduwaale li li li ñuy wax naan eh, deretu nangam moo ne sama sama yaram di dox. Eh, kon mën nañoo xam air bi nga jëlee ci ci ci ci sa waajur woowu. Mm-hmm. Eh, di ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu nag ndax ñoom kat sa ñoom kat ay jàmbaar lañ. ndax nag ñoo téye liggéey bi ba ak si fii ba mën cee jotee. Mm-hmm. ndax mën na ñoo xam air bi nga xamante ni moom nga jëlee woon ci moom boo ñu ko doon mën a laalal. tuuti rek ci tënk waaw. dama daal la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah xaadim لا إله إلا الله خادم رسول أنت الكريم أنا الخديم دهر المديم فيك سنايب لا إله إلا الله لا إله إلا الله la ilaha illallah xaadimu rasul la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah xaadimu rasul moom moo nekk air boobu air boobu air boobu air boobu dafa mel ne yàgg na lool ci ci yàgg nañ yàgg nañ koo dégg de. air boobu waaw lu yàgg la ndax man daf daanaka. Hmm. sama wuyu yu sax daay ñu fekk ci yoon yi muy dox. Hmm. waaye man ci moom laa ko ci moom ci moom laa ko ndax dama ko daan aw eeru aw la. Ah, hmm. ko daan man maa ko ma daan yi rek ndax. waaye dama ko daan ak yeneen yoo xamante bari na lool loo xamante mënu su mënu su amaana sax fàtte naa ko ca jooju jamono. dëgg na na lan lan moo la dugal ci nga nga nga dégg air bi rek. am am am xemmeemteef ngir roy ko. waaw moom de loolu de xanaa day mbiru sama borom rek waaye yaakaar naa du mhm. ndax. Euh, maam li ma wax sànq rek man damaa damaa dama dama dama damaa xàmmee rek. Mhm. sama borom dogal ni. Mhm. maa ngi maa maa ngi tudd yàlla maa ngi maa ngi jàng xasida waaye nag loolu lépp xam nga nit ku ne lam namp rek moom lay taxam. Mhm. loolu olof wax. maa avant nag nàmpatal googu ñu ma doon nàmpatal. ak yàgg a ndax dan ma daan boot sax di ma yóbbu daayira. ndax sama sama bàyyi fukk dafa ji jiite fukki daayira ak ñaar. semaine bis bu nekk day am daayira ci semaine bi. amaana boot googu ñu ma yàgg dégg googu moo dem ba ba soloo ma ko. waaye loo xamante ne lu programme la ci man wala benn yëg waaye daa dem ba doon amoon boo xamante nag moo ma gënal lépp lu ma ram ma ndax am naa ci loolu rek nag tubaarkàlla macha allah waaw euh, ñaareel bi muy sëñ Assane moom nga doon wax sëñ Assane Thiam moom tamit euh, lan air bi nga xamante ni mën nga ko cee mën nga ko cee roye moom tamit ban air lay doon bu boobaa waaw waaw kay waaw yani moom la ilaha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 laa ilaha illallah laa ilaha illallah fal laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha laa ilaha laa ilaha illallah fal Cheikh Ibra boo jaam ñi fande lamp fal baabil muridina jam ñi yaa leen di ginde baabil muridina si xibra boogu dee jaam ñi fande ay dara borom kaw sarafal kenn nga la ilaha illa faal

illallah la ilaha illallah faal aboori jaalu lay yaaram. noo ko waxee léegi Ngunda. Saliou maam Ngunda Fall. waaw Saliou maam Ngunda Fall. borom ne la wektaar bi yaa noo génde bàyyi Seex Ngunda Fall. faal mam sali aboori jaalu lay ngunde yaay debbo saar bugu dee jaam ñi fande Cheikh Abdou Sakor Fall gay na ngeloor gi naam faal yaa mat borom faal njega waaw Baye Ndiago Diop mas naa wax ne yoonu mu rabu ndëpp la. waaw boo tuddee rabu jàmm rek léegi tey nga gis mu yëngu. <laughs> waa kay jërëjëf eh, air boobu noonu. mu mel da nga koo dégg lool nag da nga koo dégg lool moom tamit lan moo la posé woon ci moom ngir nga roy air boobu. waaw moom it li ma posé woon ci moom du du ndax nee hmm. booba eh, eh, sax nee naa la jànguma alxuraan. Hmm. waaye booba xam nga xelum xale moom. Hmm. maam loolu ñu naan loo mag ñi naan loo dégg rek sabee ko picc nga mm-hmm. loo dégg sabee ko boobu loolu ma ci dugal rek mm-hmm. dama ko doon gis muy sikkar rek ma ma ma fawantoo ba xëy xëy da def ko muy loo xamante ni sama dimbali na bi ndax mm-hmm. euh, kilifa gu nekk sama borom dimbali na ba xam sikkaral naa ko mu ñaanal ma ci ba noppi tuur ci ay xéwal loolu moom dama dama ci am tawxid bu wér a wér laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah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 ba tudd benn ba daaj benn air bu mag ci mm. saa si yow mi xam sikar da nga xam ne kii air bi airu diw la. dëgg la euh, nan nga dem woon ak mag ñooñu tamit ci ak roy comme ni nga ko waxee ci ki ki nga njëkk a roy mm. ba ci Baye Serigne Fall moom ngay wax. ak ci Baye Thierno Baye Thierno Baye Thierno man mag ñi bi ma bi ma bi xam ne ci suñu yàlla rek ci laa commencé ndax Baye Serigne moom bi ma ko xam boobu gone laa lool ak Baye Ablaye Ndiaye. jaay mm-hmm. Ablaye bu mosaan na ñëw ndogu yi kër ba di si kër yàlla yàlla yërëm ko te dog yi Moussa ñëw di si kar kër ga wala xel xom ak yooyu lu mbooloo yu bari bari bari man awma kenn ci kenn soxla moom laay déglu dama koy xool na muy ŋaawee comportement ba muy yor ak na ndax booba li ak bëgg moom donc mu laay bàyyi xel ku ma ne bàyyi sëriñ bàyyi ma xel mii fu ma ko mosaan a fekk ñaari damay tàggu ko sama sogo bàyyi bàyyi lépp topp ko fu mu dugg ma dugg fa te loo xam ne sax maa ngi koy topp waaye damay topp ci gën a am rek fu mu dugg taxaw fa ma dugg bu dee day si ma ñëw taxaw fee xool ba mu ñaan ba ci màggal suñu bés bu gën gi def teewoon su ma saa ne cëpp ma gis ko bàyyi naa sama yitte topp ko waaw ngir rek mag ñi ñor gun ma ñoroon ak bàyyi gu ma yàgg gu ma leen yàgg bàyyi xel li ma xam ci ay mag ñuy tudd yàlla xam naa ne néew ma sikkarkat yëpp xamuñu ko de waaye néew na ci ay sikkarkat yu ko xam te buñ toogoon fii ma di ko lim di lim daaj yi danaa fi lim mag ñu bëree bëree bëri am na ñoo xam ne sikkarkat yoo xam ne bu ko laajee duñ ko xam te loolu li waral loolu mooy ñor giñ ma ñor ma di leen gëstu xam ne yëf fi lépp donte lépp wér lépp a neex mm-hmm. waaye nag li gën a neex te gën a wér moom ñoo ko yor fi may xew ni tambi nag sax boo dee ndaw tey tibb yàlla mm-hmm. boo keree lay sa bopp air lu mm-hmm. air ba neex neex neex boo sikkaree ba bàyyi boo sikkaree air bu mag day mel ne mosoo sikkar dégg nga wax ju baax xam la ma war loolu baatin ba ca nekk ñoom seen jàng daa am baatin baatin bu ci nekk ndax fa mu soq ko la nag moo tax lol mo waral léeg di leen gessu di laal ci seen yef mhm. bax lol comme comme comme yow ni nga def bi nga bi nga jógee pour Sikar nga nga jaar ci ñom waaw ba tay ñu bari dana ci si Moulaye Fall mandat rek la man. waaw ñu bari dañ koy wax. waaw euh, ngir lan moy pas-pas bi nga jox mandat. nga xamne boko def sax da ngay xamne nekutut nekutut nekutut fi mm. manam mi ngi ci benen benen benen ki legi nak lan ngay soñu ndaw ñi nga xamanteni dañu jug ñom ngir Sikar te te bëgg tambalim Sikar ak ñan nga leen eh, roy lo directement pour ñu dem fa roy leen. nit mom bu fekke da nga bëgg dara. Mhm. te di ko sàkku da ngay fexé ba sakku ko sakku win sakku win lo xam ne boo ko dana dana dana ko dégg ba ko gis dina ko rafetloo. Mhm. moo tax li may digal sama bop ndax man ci ndaw yi la bok mhm. ñi tudd yàlla xëy na bo ci gën a doon gone xam naa ne maa seen ma maa ci gën doon gonet bu dé telet ma ko gëna telet ñu koy def waaw. loolu moom nangu naa ko bu wér mhm. waaye ku koy sàkku te te ko mhm. na fexe ba ku mën a doon ak ci koo mën a sàkkoo mooy xam mag la moo xam ci sa kàrkar yu ndaw la mhm. fexeel ba yow li ngay sàkku nga na di ko sàkku ngi jëmi sëriñ bi euh, nit dina roy nit sax ci sikkar xam nga nit mën dañ ko roy ci na muy jànge waaye jikko ju baax moom ak melow melow melow melow rafet ak ak ak ak ak ak ak ak taalibe ak woyof ak xeeti xeetu melo yu baax yi nga moom moom moom la ñuy tàmm ci doomu aadama yow yaa koy sàkkul sa bopp yow ci sa jëmm bopp boolee nag sikkar sa ngay sàkku ca kooka wala bëgg a bëgg a mën la mu mën bu defee nag boo boo fexee ba la mën nga mën ko wala nga am ca loo ca mën boole ko melo yii yàlla mën na laa dimbali ba li nga yor da nga xam ni nga koy jàppee ndax nit dana wut dana wut mbir ba am ko téye ko waaye nag jàpp ga dama koy jàppe nag mooy mooy des mooy jafe mhm. lan nga ñuy mosalaat ci sikar si loo bëgg air bu la neex rek foo jaar yoon la laa ilaha illallah laa ilaha illallah muhammad rasulillah muhammad rasulillah muhammad rasulillah Abbaay Soode Faal Abbaay Soode Faal yaa nu tere nu ci jaanama laa ilaaha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 la ilaha illallah la ilaha illallah محمد رسول الله محمد رسول الله أبا يسود فال أبا يسود فال يا نتري نوتي جانم لا إله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 ah. Mhm. xam nga ko doon sikar. suñu baay Maxit baja dijamba <laughs> di di eh, sëñ Modou kon yow man nga sikar sikar sikaru démb. waaw. waaw léegi loolu tamit bëggoon naa nga dugal ma ci tuuti ndax. xam nga xam nga xam nga li nga jëlee bàyyi Maxit. <laughs> si karam si. Mhm. yombut de. déedéet xam nga ci loolu. Mhm. ba pare tamit euh, kii ni mu koy def noonu. waaw bàyyi Soda Fall yaa ñu tëri ñu. waaw air bi dafa kawe. Mhm. Euh, lan moo la dugal ci air boobu ak tamit maanaam da xam ñenn ci mag ñi ñoo xam ne mag ñu fi nekkoon. doon sikar ndax boobu ba léegi ñi ngi waxtaan ci sikaru tey sikaru tey ñi ñu maam waaye dama bëgg na nga dugal ma ci sikaru démb ba xam ah sikaru démb de moom xam nga bàyyi ma xel ba jaan moom ku tudd sikaru démb naam di nga ko ci boole ndax jamono ji boo dee xool mën nañ ne sax tu tànk yi ñoo ko gën a xam mag ñi fi mu toll nii. Mhm. ndax dañ koy nit ñi ñoo bëgg fi mu toll nii lu wér. Mhm. waaw mhm. maanaam loolu ñu naan legetu kese naxut ay béy. maanaam nit ñi fi mu toll nii faaw nga mën a sikar lool. door leen a sikaral. waaw. yow mën ngaa sikar ci yow li ngay sikaree. mën nga koo sikar ci fu nekk. waaw fu nekk kon yow da ngaa fexe ba bi nga jugee ngir ngir sikar. jëloo rek. benn côté bi rek. da ngaa da ngaa ñëwaat ci ci côté mag ñi. xam nga xam su ne man defantu Hmm. waaw hmm. man def rek laa xam. waaw ginnaaw dama xas bay sikar hmm. dinaa fexe ba bu ma ay xale woowee wala ay gon tuut tànk ma man leen a sikaral waaye bu ma demoon ci kanamu Cheikh Mouhamadul Mountakha tamit man koo sikaral mooy lii nga sikar waaw da ñeneen dafa am ñeneen ñoo mën a royaat ci mag ñi waaw waaye heure bii de moom bii nga bi nga kii nii kii maan na loolu <laughs> bi moom bi daal <laughs> ndax dañ ciy waat bu baax a baax bàyyi ma xet mhm. ndax bàyyi ma xet kat waaw ni mu daan sikkare mhm. boobu sax rojo yi taxul mu demoon noonu waaye ni mu ko daan jooroo mhm. ni mu ko daan yëkkatee tey jii yow mi ni nga koy ni nga koy yëkkatee nii dañ ci suñ xel day demaat ci moom su ko defee ñun ñi ñu man koo ñaan waat fàttalikuwaat mag mag ñi boo gisee ma lay tuddal yenn ci mag ñi waaw muy lépp foofu ci ñoom la jógee léegi nag képp kuy ndaw tey jub dëgmal sikkar faaw nga jaar ci mag ñi mënut a ñàkk xam nga Baye Serigne Diouf Baye Serigne Diouf waaw لا إله إلا الله لا إله إلا الله xam ne booy boo booy boo booy boo ñu jéem a kii rek ndax xam naa ne yaa ngi may commencé dugalaat ci feneen foo xamante ni xam naa ne. maanaam buñ ko buñ ko njëkkee buñ ko kii daanaka dañuy continuer foofu. laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah maam Seexu Ibra Faal wi maam Ceexu Ibra maam Ibrahima lamp yaqal laa ilaaha illallaah borom ilaaha illallaah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 waaw euh, sikar si am na solo lool te it euh, ku la dégg ni ngay sikare xam ne. Mhm. air bu yàgg la air boo man la tamit boo jekku la. Ah. Euh, waaye ñu fas yéene ànd ak bàyyi xam ngeen ne Baye Ousmane te jël na leen. waaw dañu wax naan saxaar bu jubee gaar day corne. Mhm. kon loolu ngeen dégg mooy air boobu noonu nga xam ne moom ngeen dégg. mooy mhm. airu Baye Ousmane moom mii moo ko moom moo ko fente. te it moo ko moo ko moo ko sikar tamit kon képp koo xamante ni tamit. yaa ngi dégg Baye Ousmane rek di dégg air bi di nga xam ne kon moom moo sikar air bi. waaw ah. air bi Baye Ousmane fan la nan la dëkkee ak fan la dëkkee. ah maam yàlla lu ko leen neex lay def rek man maam nu ne nu ne laay sikare du du du rek laay sikare di. Hmm. waaw du noonu rek laay sikare man hmm. de nu nu ne laay defee de. Ah. waaw <laughs> ci ci mbirum sikar. Hmm. waaw ndax bu ma neex neexee di ko def ci kurus nag. Hmm, waaw kay waaye comme yëkkati. waaw sang bi ci boppam moo ma ne ma nga dallu sikkar si te bàyyi koog bàyyi daam waaw te it bàyyi daam it ne ma nga dallu sikkar si te bàyyi ma gaañi loolu moo tax. Hmm. ma ma waaye dama leen daan jiital ci sikkar. Hmm. léegi nag bu ko defee danaa koy dallu nii ci yëkkati waaye bu ko defee ma yor saa kurus. yor sa kurus lu ma ci man di ko def rek. ñu gis Baye Ousmane bu ñuy bu ñuy kuréel di jóge kër Sim Sakor. di dem di dem. waaw Baye Ousmane koo muñ. daanaka sax dañ koy dañ koy bëgg a toogloo. waaye hmm. day mel ne loolu day day ne ci moom. waaw eh, ni muy dundee si kër si diggante eh, Baye Ousmane ak eh, si kuréelu Sam Fall bi nga xam ne moo ne kër sëñ Abdou Sakor te te it Baye Dame nekk ci nii. Hmm. di ko nuyu baax di ko di ko siyaar Baye Dame hmm. jàmbaar la lool ñu gis taxawaay bi nga xam ne am nga ko ci kuréel bi loolu tamit mën nga ma cee ñëwal tuuti baay Baye Ousmane. waaw man Baye Dame wax dëgg yàlla dafa am yéene lool. dafa am yéen te dafa bëgg sikkar ku baax a ngoogu laa la wax Baye Dame Baye Dame Ndiaye mm-hmm. dafa bëgg sikkar ndax man dama ko yàgg xam ba mm-hmm. koy xam booba wax dëgg yàlla mm-hmm. euh, booba booba booba daal euh, tubaab laa ko xamee woon waaye naka jekk lu baax rek laa xam ci moom mu bëgg sikkari lool di ñëw di teew si ci sikkar si waaw su dikkee nuy ànd ñuy dem ba yàgg sëñ bi wax ma loolu nag moom it mu wax ma loolu lool rek a tax sax jiitalatuma leen waaye teewul nag it ba tey mën na ma cee yëngu waaw waaw léegi nag man sama wàllu bopp. Mm-hmm. léegi ma def noonu nag yor yor sama kurus nag di ci yëngu nag rek. di ci yëngu di foofu nag nag. waaw eh, léegi Baye Dame Baye Baye kii Baye Ousmane. waaw eh, ndax ndax ndax mag ñi fi nekkoon daan sikar. waaw ñu tuddee Baye Jibi Diouf. waaw wala ñu tudd Baye Serigne Fall. waaw eh, waaye la ñu tudd Baye Baye Mor Dieng. waaw wala ñu tudd Baye Badara Thiombane. waaw wala mu wala ñu tudd mag ñu bëree bëree bëri. Baye Jibi Diouf Baye Jibi Diouf. waaw ñooñu ndax nan la Baye Ousmane demee woon ak ak ñooñu. maam nag maanaam man sama sama bopp daanaa dem ci seen sikkar. Mhm. léeg-léeg ma dugg ci. Mhm. waaye nag ñaare ni ci ëpp ñoom bu fekkee ñoom ñu ngi sikkar fekk na ñun ñu ngi sikkar. Mhm. xam nga loolu moo waral du ma bari ci teew ci ñoom nekkuñu ñu nag. nekkuma nag koo xam ne dama daan dem ci ñoom wax dëgg yàlla di leen xam dëgg ñu di ma xam dëgg itam nag. Mm-hmm. waaw man maa nekk koo xamante ni kii nit ku nekk ak ni ko suñu borom melal. waaw xam nga daal moom lool rek la. Mm-hmm. waaw waaye nag tox bu ma leen gisee nag danaa xam ni kii moom diw la kii mm-hmm. moom diw la. waaw waaye nekkuma daal bokk ak ñoom ay jataay nag it nag wax dëgg la ilaha illallah la ilaha illallah la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 illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la bu baax a baax ñu feeñal yéene ci suñu bàyyi Ousmane mii te di ko ñaanal bu baax nag suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ba mu dund at yu bëree bëree bëri akum njabootam ak mboolem ñi ma xam ne ñoom laa fekk sama maam maa ngi koy nuyu baax xam naa ne fi euh, kane ni moom xam naa ne fi mu toll nii moom tey moom duñu wax dara moom <laughs> waaw xam naa ne maa ngi siyaar nag bu baax tamit ñi nga xam ne ñoo la ànd jotaay bi sëñ Pape si la ak mbokku taale bi ak euh, sëñ Fallou mi nga xam ne moo yor caméra euh, kii caméra bi ak mboolem ku ñu doon topp rek ci réew mi ak ci bitim réew kon lii moo nekkoon seen si émission Zikroullah fii ci Palen kër sëñ Sakor kër Baye Mbaye Kane Khandi di ñaanal bu baax suñu borom eh, gën a yokk ay leeram te taaf ñu ci barkeem wa axiru dahwaana an alhamdulillahi rabbil illallah la ilaha illallah